lislaam gërëm na ci diine ci diine canaba mooy biir diine diine julleeg sikar xam sa diine lislaam di sel te fiire demal canaba sakki ay waay sekki zakat kulla say in aqra sariati diine moom ahmadu gone naak yaay nasu diine su jaatu yaa di manaanu manaanu yaa di tafiyu ay waay seenu xanniyu nangul nga leen seenu coono ma sekki sekki sekkiyu bi jëm dina baa xaritoo daaru nabiyu dëggam bi dafa leer mooy na su diine ñëpp def ni ñu magal baay sëriñ Maxtaar Sekk sëriñ Usmaan di ko sopp seen borom معلم الذكر أهل الذكر عثمان يا والد القب إبراهيم سيدنا مأوى الأرامل والأيتام من وانا سكموري نم سيدي في جنة العلماء قد تغير وميتا أنت مقام المال بالله مقوانا سك سباي معلم ناسق ناسق أبو ورع وسيد كامل من قاس عفانا إن تلقى عثمان تلقى ليس في أجل وتلقى بخر قدنا سفخانا سلموا رسل جنبا صلى الله عليه وسلم يقل di nuyu ñi fi teew ñëpp imaamu quartier bi ñu ngi koy nuyu mu yóbbaale ñu kilifa yi fi nekk ñëpp président daayira bi ñu ngi koy nuyu sëñ Alpha nga yóbbaale ñu waa daayira bi ñëpp sëñ Pape seen taxawaay rafet yi saa su ne ci lépp lu xew ci kër gi ci tarixa bi macha allah yal na yàlla gën leen a wéral gën a guddal seen fan ngeen yàgg it ci kanamu njaboot gi gën leen a mën a gunge ndax seen doxin rafet na te yéen yéen a ko jiite yal yàlla gën a taxaw gën tamit kilifa yi fi toog teew ci tànt bi ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi nga xam dañ leen a invité lu mel ni monsieur le maire ak euh, Malick Gueye ak ñi ñu àndal ñëpp ñi nga xam ne ay kilifa lañu invité leen fii yëpp ku nekk ñu ngi lay jox sa tur di la wàcce sa wàccuwaay euh, di jagleel nuyoo euh, ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal ba agsi fii te ki nekk ci bopp bi jiite ko muy sëriñ as sekk borom ndigal euh, ci loolu ci la ñuy nuyoo njabootu maam Amary Ndack Seck yépp sëriñ Pape Mor Gueye macha allah ci taxawaay yu rafet yi ak bégal ñépp ci yonent bi ak xaal bi ko duggee tey jii ñëpp bég ñëpp kontaan yal na yàlla gën wéral gën a guddal fan aji Pape Mor waaye sunu rak sunu xarit Serigne Makhtar Seck bu bàyyi Serigne usmaan dàpp ñu ci jotaay bi dabin wu rafet ànd ak délégation bu am solo rakkam nekk ci wetam Serigne Ibrahima di doomu bàyyi Serigne Ousmane euh, ànd ak bàyyi Thion Sarr Baye Ndiaga ak Ousmane Baye Thion mu ndaw laa koy tudde ak mbooloo mi ñu àndal ñëpp. macha allah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di am mbégte ci teewaay waaye di nuyu Serigne Ibrahima bu Serigne Madike Seck moom fii bërëbam la fii dëkkam la waaw fii ba euh, Kër Bakary fu ñu fi mës tànt rek mooy ñëw macha allah dëggal ñu ci yonent bi waaye damay wax ni moom ak Mouhamadul Mahdi yu Cissé duñu ñaari jëmm benn jëmm lañu ñoo bokk luñ bëgg bokk lu ñuy wax bokk lu ñuy def kenn ku dem rek demaaleel nga sa morom bi muy ñëw daal fekk Mamadou Madi Cissé déggal ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa door ñoo dab ci jotaay bi macha allah sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu. di nuyu président fédération bi sëñ Souleymane Guèye ak liggéeyam bu rafet ak taxawaay bi euh, famille waa Kër Maam Goussane Pape Abdoulaye Mbuub la ñuy teg nuyoo boobu ci sa loxo nga yóbbaale ñu njaboot gi ñëpp ci zikkar su am solo si. ak yonent bi macha allah fu ñu dem noonu ngeen ñuy euh, bégale yal na yàlla bégal leen sargal bi nga def bërki démb siggal ñëpp ci sunu maam Seydi Mujahid maam Amari Ndaak Seck yal na yàlla sagal la ci ay maqaamaam ci ay darajaam ci ay leeram dem rek ilal amaam incha allah yal na ko yàlla def ak mu ne ñu teewee di nuyu soxna yi teew tamit macha allah ñoom dañoo am solo ci jotaay ndax dañ koy taaral beneen bi ci desit yàlla li euh, sunu góor gi wax léegi bëgg Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yi ñoom macha allah dañuy dañuy dañuy gunge ab tànt ci bégal tàggkat yonent bi ak yëpp macha allah yal na yàlla jàppale leen taxaw leen bégal leen ñoom ay ay ay dencukaay lañ yàlla li nit ñi am kenn ku nekk dangay wut foo ko denc nit ku nekk li nga am yaa ngi wut foo ko denc bu dee al xaalis sax da ngay ñëw poos di ko ca def bu dee ceeb bi ngay dunde magasin baa nga ci kër ga ngay denc di tëj di tijji yére yi nga defar armoire di tëj di tijji lu nekk nit mooy defe noonu lu mu am am na fu mu koy denc yàlla tabaxul ay magasin defarul ay armoire defarul ay valise dafa bind ay doomu aadama li mu am lépp nag ci jaami yàlla yi la ko def te kenn xamul lu yàlla denc sa morom moo tax ku nekk di ormal sa morom bu amee rek li ñu bëgg lépp ñu daat koy am kon kenn ku nekk na joxaat moromam loxo jël xolam jox ko moromam ñu nekk benn bu ñu ñaanee yàlla nangu ñuy jagleel nuyoo sunu mag soxna nu koy di mag ci sëriñ as Seck bokk moom ndey ak bàyyi féete fii ci mbuur euh, nekk nit ku baax nit ku lewet nit ku laabiir mbaax ga woon ci bàyyi sëriñ Mouhamadou li lépp mu ngi ci moom soxna nu koy nga àndal ñëpp ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara waaye di jagleel nuyoo sëtu sayiduna muhammad mu yóbbaale ñu ñun ñépp géew yonent bi nee na woon qaddimu quraysh fu ngeen leen fekk rek jiital leen te sëriñ Amdi dafa nekk nit ku baax nit ku dal ñuy bokk ak moom jotaay fii ak mu jot waaye toogaayam bi ak teewaayam bi ak nii muy defee bi ñu ko xamee bërki démb ak démb ak tey yépp nii la mel kon sa am di ñun ñëpp ñu ngi ànd di la ziyaara di la jox sa cër di la jox sa wàcc waaye di ñaan yàlla na yàlla gën laa wéral yàlla gën a guddal sa fan mag ñi li ñu am lépp ci sa maam lañ ko jële Seydou Seydina Muhammad kenn ku ci ne kër ga nga nekk moo xam murit nga wala tijaan wala xaadir fu mu mën a doon la nga am ci yonent bi nga ko jële yonent Muusa yonent nee na woon allahu huwa al mu'ti wa ana al qasim yor mbir yi moom ko di ko joxe waaye man maay séddale ku ma séddul doo am kon ku am rek yonent bi moo moo moo moo la may mag ñi lu nekk def nañ ko ci yonent bi maa ngi nettali benn bés euh, bàyyi sëñ As mi bàyyi sëriñ Mouhamadou li Seck dafa am ay tournée yii sëñ As di def da ko daan def bi mu toogee ci xilaafa gi moom ñeenti at la def ci xilaafa maam Amari Ndak waaye wër Sénégal ba mu daj fu kilifa ne dem na fekk la fa ànd ak mbooloo yendoog yow wala mu fanaan ak yow te yàlla ak dundal ak mbokk rekk tax ma nettali benn bis ma ni mës naa def kéemaan gu rëy dafa mës a dem ci benn kër nga xam ni am na ñoo xamante ni seen alal du des ginnaaw ba ngeen ma lépp ñoo ngi ci teg bët Baye Modou Ly dafa dem benn benn tournée ñu dalal ko ci benn néeg bi mu dalee ci néeg bi ba war dem fàtte kurusam ci bir néeg oto yi départ dem ko dalalon ci néegam dugg di defarat néeg bi oh. dugg di defarat néeg bi gis kurus gi ci ci muni muni muni muni ni mu kurus de kurusu sëriñ bi xalaat xel mi ni ko bu ko delloo bu ko ko jox mu ni kurus gi dama ciy barkeelu ku toll ni sëriñ Thiénaba bàyyi kurus ci sama néeg bii dem ma di jël di ko ko yóbbul daal ñàkk fayda foofu la mën a <laughs> dañ ciy tudd yàlla dama koy jël dama ko dama di ci tudd yàlla waaye kéemaan gi mooy dafa dem ba guddi mu jël kurus gi ci batan bi denc suba waaj julli ba pare jël euh, jël caabi ji tijji bataan bi pour jël kurus gi laa laazim ci mu xool gisu ko fu nekk xam nga boo dencee dix mille ci sa poosu càmmoñ bi nga xam ne fii nga ko def bu réeree faaw nga dugal ma xool faaw nga def fii solo bataan yëpp muy tijji benn par benn fu nekk mu yëkkati xool gisu ko mu songu soxna si ni ko kurus kurus gi yaa ko jël denc ko da koy génn jëm kaw jëm su soxna si ni ko man kurus gi bang nga ko dencee fii boobu laa ko gis ñu wër ba mu ni kon def naa loo xam ni faw ma dem ci sëñ bi baalu ndax kurusam gi man maa tax mu réer mu jël oto wàcc ci tali bi cana ba dox ba ci kër Baye Serigne Li mu dugg fekk Jey ci bunt ba ñi xam Baye Diédiou xam nañ mu ni ñu mu ni leen sëñ bi laay seet moom laa soxla man la diw man la daloon sama kër Baye Diédiou ni ko xamee naa la daal di dugg ci biir saal bi fekk Baye Mouhamadou Seck ci biir mu ni ko diw de te nga daloon këram bërki démb moo la doon seet mu ni ko nii leen ko na agsi ak lewetaay ba Baye Modou ni mu daan toog ferenkulaayu bi góor gi dugg see ba xëcc rido bi mi ngi fekk Baye Modou li ferenkulaay yor kurus gi naan ko kii du fanaan àll waay kii du fanaan àll nga xam ni ñoom seen seen alal dañ cee teg bët laa ilaaha illallah am na loo xamante ni nii hmm. du ay caaxaan ki nga gis nga sàmmkat bi day jiital nag yi yor benn yat di leen sàmm loolu ak jur la doomu aadama bu ci nekk yat moo koy sàmm yatu boppam moo koy sàmm ba dégg ngeen ma mhm. li yàlla duy ci moom moo tax su ko defee ñu bàyyante xel bu baax a baax a baax Pape moor gi dafa wax léegi ni bu may way téere bi ñetti bunt yi ñetti bayit yi na ñépp julli ci yonent bi awu xamoo awu boobu salaatu ala nabi la mu ni sa aajo dina faju بوير لا اذا كنت في امر ودقت بحمله واصبحت في عسر وامسيت في حرج فصل على المختار من ال هازم كثيرا فان الله ياتيك بالفرج لي كوكو سافو سا ادنا با سا الاخره با موني موني بو نيكي تي تيمبير بو نيكي تيمبير مير مي ديس لول با اتنوكو نيب لاي sa bopp day diis ndax ay problème ndax ay jafe-jafe gisoo déggoo dinaa koy wax ma ni euh, euh, léeg-léeg sa bopp fees ba nga sonn sonn trop ñu ngi stressé mu xam nga lu koy dindi jëru dem pharmacie jàppal ba seel def ñaari rakka yor sa kurus fas yéenee def junni salaatu ala bi junni ci jullil ci yonent bi rek waaw ah. mu ni isa kunta fi amrin boo nekkee ci mbir wa diqta bi xamlihi mbir mi diis lool ba ba mu ba mënoo ko yem wa asbaxta fi usrin nga xëy nekk ci ay jafe-jafe yu mu mën a doon nag wa am sayta fi xaraj nga gontu yëg ni yow def nga ay bàkkaar ba tiit sa diggante ak sa borom ndax doomu aadama rek nga wa am sayta fi xaraj mu ni boo bëggee génn ci loolu lépp fa salli ala almuxtaar jullil ci yonent bi kasiiran na bari su baree fa inna allaha yatika bil faraj yàlla moo lay dindil jafe-jafe yooyu ba mu deñ moo tax maam amari ndaak ni bu ñu taggee yonent bi ci téere bi rek julli leen ci yonent bi salaatu ba mu koy ndee nag mooy saydil bashari wa shafiil mushaffaai fi l mahshari dafa guddi ne kon moo way ko bàyyi moo gee su ko defee kenn ku ci nekk bàyyi xel ni foofu pàmmoo gi doon waxee xaal la yonent bee ñu ko yonent bee ñu ko sant sallu alayya la wax julli leen ci man li qadaai xawaijikum pour seen aajo yu faj mag ñi mani tubaab bi yàlla may na ko xam-xam mu defar pikiir boo xam ni bu bëggee jàpp gaynde bu ko ko dóoree trente secondes gaynde gi dootul am kartan day daanu ci suuf du dee nag mu ñëw tiim ko lu mu bëgg a ci moom gëstu koo kii waaw xam-xam boobu la leen yàlla joxal mag ñi amuñu woon boobu xam-xam pour defar piqûre mais yàlla dafa leen defaloon fatxu seen diggante ak seen borom ñoom daan nañ tiim gaynde julli ci yonent bi ba mu ni nërëm sukk ci suuf ah, moo tax ñu ni buñ nee la diw gaynde lañ ko booleeloon mu ñëw sukk ci ci kanamam boo ko weddee xamoo boo weddee lool rek xamoo ñoom yonent bi lañ daan jëfe lépp dañ daan julli ci yonent ba ba ba gaynde boofu gisoo maa ngi koy wax keroog ma ni simbukat yi ñun suñ dëkk moom amul simb waaye ñaam am simb xam nañ de nit ñooñu di jël yi ñuy jël takk ay téere ñu naan leen gaynde njaay gisoo bu ñu leen dee jat de xoolal force bu ci bokkut du baax salaali muhammad la ñuy wax waalaali muhammad xaw ma naka jaaka ca jaa yooyu yooyu xaw ma nuñ koy koy laaj waaye lu mën a xew lu mën a xew salli ala muhammad boo amul rek mbir mi du baax moo tax nañuy jullit ci yonent bi ah. na kurus yi di bees waxtu yi buñ koy rate jullit day wane lii tax ñu ni kii ab jullit la mooy waxtu julli juróom bu ko rate mais sa kurut sa kurus dee ci julli ci yonent bi di ci julli borom borom dalaa ilul xayraat am na téere boo xam ni dalaa'ilul xayraat lañ ko tuddee sëriñ si xam nañ ko façon salaatu ala nabi bu nekk ma nga ca gis nga ki ko bind dafa mës a am bés muy dox di dox di dox ba ci benn teen mu mar lool bëgga a naan fekku fa kenn kuy root maram koy bëgg a sonal mu ni na toog xaar bu kenn root see rek may mu toog ab diir am ku ñëw di root ci teen bi bi mu jukkee baag mu ne ko may ma mën a déedéet benn xale mooy mooy daw di def sport avant muy gis kenn ku ko ku ko ku ko rootal xale bi daw di daw ba tombeek teen bi daal di jàdd ni ko papa looy def fii mu ni ko man doom dama mar bëgg naan te gisuma ku root si fii ba may ma ndox ma naan xale bi ni ko papa loolu rek nga bëgg mu ni ko waaw mu jël loxo ndey dóor ko ci pindu teen bi ndox mi ni bëx bëx bëx ba agsi ci kaw teen bi mu ni ko papa naan góor gi sëgg di naan xale bi daw bi mu siggee seen ko nale ko sama doom xale bi taxaw mun ko kaay xale bi ñëw mu ni koy li nga def nii moom yéem na mu ni ko papa man awma benn maqaama waaye xam naa ni man fu mat toll damay julli ci yonent bi ba su may nelaw sax sama xol bi day julli ci moom ci la ma yàlla mayee lii góor gi nag daal di wàññiku nag dem songu dalaa ilul xayra di julli ci yonent bi moo tax lu waaye bëgg lu waay bañ mu dal la lu waay bëgg am teraangay àdduna teraangay alaaxira jullil ci Seydina Muhammad yàlla nañ ci teewee at yu bari yàlla na yàlla fajal ñu suñuy xaajo zahiran wa baatinan wa ma zalika ala salaamu aleykum wa rahmatullah ah. waa ah. bi ñoo ko président nee na. waaw kay waa fédération bi téye ngeen ko waaye am na beneen message bu président lancé ko ñu ngi leen di cotisation annuelle joxe nañu ko léegi seen cotisation annuelle globale la ñu président léegi nag ñu wow daal ma bëggoon wax lépp ci taalibi ci lii gi jublu muy élection yi wax nanu ko bu dee waare alaaji Abdu def na ko gàtt na waaye xayru kàllaami maa qalla wa dalla kaddu daal bu gàttee te tegtalu fees del loxo yi ah doy na sëkk Serigne Mokhtar Seck jërë ngeen jëf yàlla na nu leen yàlla fayal sëriñ Ibrahima Diop Seck sëriñ Ibrahima sama doom bi may nuyu dama ne ko doomu jàmbur sant nañu la gërëm nañu la suñu xol set na am di kutta jaajëf yow moom Canaba ak benn lañu éragement bu yàlla xippee aljana pour benn suñu maam doom

monsieur le maire jërëjëf El Hadj Malick jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen aw yiw yal na yàlla tekki yeen loxo wax leen am na yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen yal na sama borom sutural leen yéen daal li ngeen bëgg ci dëkk bi kenn ku mu la nga bëgg daal ci dëkk bi mooy mu jag mu baax mu rafet mu tedd mu taaru yàlla na yàlla defal leen loolu damay ñaan rek kon te su ma ñaanee rek incha allah am naa yaqin bu wér ni yàlla dina ko nangu ndax barab bii dëkk tey jii yaakaar naa ni xool bu naqari nekku fi xoolu mbañeen nekkul fii xoolu soppante rek. te nag ko sopp sa morom nag teel tax yàlla daal la dimbali jaa ngeen jëf xool seet na buy na kenn ku ne fi nga toog la jàng fatiha jàngir wu sell fatiha moom sell na ba mu wàcc waaye nag xol ba gën mu koy jàng la ñuy ñaan nga sellal sa xol koo ko sellale rek loo ca ñaan suñu borom nangu ko. boo paree nga teg ci ayatul kursi falaxi ak naasi salaatu ala nabi nanu ñaan yàlla lépp loolu fi ñaan yàlla na ko sama borom nangu barab bii tey barabu ijaaba la de ku fi ñaan ànd ak xol bu féex yàlla dina ko nangu waaye nag ku fi ñaan yaakaar leneen doo ko de jàmm doo ko يلا يا خديجة بسم الله آمين بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والآمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذه سنة ولا من له ما في السماوات وما في الأرض ليس الذي يسبح به إلا بإذنه آمين يا رب آمين ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وسلم آمين يا رب صدق الناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام jàmm wasalaam mucc amiin wasalaam al wasalaam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin xula adamiyan xilafatun malaki